dikkati na ndeke yoo weñ gaa nga bañee ca mbànjaxaan nga dëgg-dëgg turbine yéene kaay ne ma coow lu coow li ña doon wax naan ministère des finance ñoo sàkku ñu daal di publier rapport bi yéene kaay des médias ne ma déet demeewul noonu de rapport bi nga xam ne cour des comptes daal dina koy def ca nañu jëfandikoo fonds force covid 19 bi ndeke yoo FMI ci boppam moo weñ loxol président Macky Sall ngir nag rapport bi ñu daal di koy le moom FMI mi nga xam ni barki démboo njaay moo ne courant bi nan ko yokk méngale prix tribune yéen a kaay ma moo weñ loxol président Macky Sall ma ni la ngir ñu publier rapport bi ministre Abdou Karim Fofana ci bés bi la journée déet déet bu leen jaawale tribune yéen kaay ne ko may ma rek Abdou Karim maa la ko ñaan may ma rek ma wax la dama ni FMI ci boppam moo weñ loxol président Macky Sall ngir daal di xool rapport bi lan moo ca nekk ban ca noppee ñu ne ko Sall ngaari lam tooroon a génn rapport bi naka sab askan yëg gis ko xam la ca ne yéen a kaay bi dee média bi ne moo taxit ña nga xam ne dañ doon laam-laamee mbir mi dana am ay poursuite judiciaire am déet nañu tëri da koy am force ndax FMI ci boppam moo fas yéene nag topp mbagg ak mbagg ña nga xam ni ñoo sàcc ba jébbal leen yoon buñ ca noppee nag mu topp leen mbagg ak mbagg ban àtte leen def ci ñoom la war tribune yéen kaay ne ma ñee ngay tëgg salsa ñi ñi di tëgg mbalax mu saf sàpp moom président Macky Sall fu mu cay féetee yéen kaay bi dee média bi ne ma en tout cas ay ñoñam def nañu rapport bi xamal sénégalais yi ne leen def nañu FMI ne leen nañ leen topp te ñooñee ay jege ñaale waa ji lañ ñii di ay jëwrinam ñu ko jege lool ñeneen ñi di ay daaj yoo xam ne yi lan la sàll ngaari buur géde di def tribune yéen kaay mel ni ku maan bul sori ak man de xanaa troisième moom président Macky Sall jegat jegat teewul ñun jëmee fenn fudul troisième mandat bi ab plan secret lay nas di nu jaay muus ñun askanuk réewum Sénégal moom président Macky Sall la daloon ivoirien ak Ouattara moo ñuy dal loolu la bëgg boog en mu dal nu ab plan secret tribune yéen kaay ne ma moom la am te loolee nag sabab gi du leen lu mi yéen kaayub dee ma cell koo jot mu daal di koy déposé gars yi xam ne nag léegi candidat la lu muy fekk conseil constitutionnel gantu wala jubal candidature am bi Walf Quotidien ne ma en tout cas Kader Boy moom daal di na yekk keteme Ismaïla Madior Fall daal di xam leen ni Ismaïla Madior Fall ab danger la ngir ay institution yu réewum Sénégal Walf ne ma fii la taxaw daal di ne bu nu jaayee ñaari millions yu carte loolu ci boppam mooy def président Macky Sall candidat d'office yéene kaay ba ca kër gu mag moom Walf naan ñoom responsable APR ci boppam ñooy jëndal seen bopp carte yi te mën nañ ko nag rax ci dolli njëgu carte yi ci boppam dañu koo wàññi jaayi ñaar million u carte du dara ci ñoom Walf Quotidien ne moo taxit Kader Boy nee na Ismaïla Madior Fall day caxat-caxatee suñu institution danger la ci Jama Badiane philosophe ak sociologue ci tribune yéen a kaay ne yow président Macky Sall boo bëggee sénégalais yi yéegaat la yëgoon keroog ba nu jëlee kan ba nee leen damay respecté la ma diggee ak ñoom ci ñaar ci mandat laa yem daa nga gis jubilé bu raw bu kan ba a ma waxtu waaw suñu tali yaa ngi faat faat gu a mesures yu am doole daal dinañ koy jël vox populi ne ma ay mesures yoo xam ne ni ki démb door woto yi wajaase 23 heures 5 heures du matin la ñuy daw l'observateur ne ña nga xam ne ñoo ca dëgëroon ni ki démb bopp dañ leen gaara ñu daal di taxaw foofu ba waxtu départaat jot ñu daal di demaat yéene kaay bi ne ma coowal porte bagage yi moom jeexul ndax ca boo maraîcher porte bagage yaa nga fa war nañu amal ab ndaje ci gaawu bii ñaar ñi moomoon bus si def accident ba ca kilo tay lañ leen di defeere vox populi ne ma yeneen mesures a ngi stationnement yi nga xam ne dañuy yeb ay nit léegi ci gaar gare routière wala parking yi leen di réserver la ñuy gaare gare routière yi cinq la ñuy tijji tëj vingt-trois heures yéen bi ne ma woto yi nga xam ne dañoo chargé lu ëpp ñetti tonnes ak xaat dañ leen di bloqué diggante six heures ak dix heures daal di leen di bloqué waat diggante seize heures ak vingt heures tere nit ñu daal di gaare ci tali bi bëccëg ak guddee ci yam Mamar Sourang ci yéen bi ne dogal yi bëri na te diis na daañu xool nees def ba daal di ci andi ab riposte ndax gouvernement gi moo war a xoolaat boppam du da ngay dégg teel rek daal di ne damm na gis accident rek jëli mesures yoo xam ne mën na gàntal yow sax sab askan l'enquête ko di jee mel ni ku samp plaaj ci Amadou Ba kiyétii ma nga ca fukk soq ak ñaar Amadou nga ca drame bu siliko ba ca scandale bu fond covid 19 ba ma nga ca hydrocarbure ba PM la boo xam ne ma nga ca xare ba waaye Amadou ci boppam amagul bureau bés bi le jour ne ci bi yokkutee gannaaw bu essence bi paas bi moom ma nga ca yoon Mbaye Amar njiital aftine tataa yi moom téeméer boo jël juróom ñett fukk ya neeñu nañu yokku car rapide ya clando ya na seen bopp transporteurs yi ñaar fukk ak juróomi nguur gi joxoon ñu waat ko jébbal ko ko le soleil yéen a ma en tout cas yokkub courant bi papa ma démb bi tey day ma ngi koy layal turbine yéen a kaay ne ma ca accident yi nga xam ne mi ngi bëgg a faat sénégalais yi C50 PN ña ngay xam le ni na privé national bi dem investir ci dem dikk mooy dëgg C50 PN naan jëli mesure jot na appliqué leen ak rigueur gi ci war jot na ngir mën a nag andi kaaraange ci askan wi nga xam ne ñooy wajaase waaye tam daal di andil kaaraange seen i marchandise direct news moom daal di sampublaaj ndax nag nguur gi ci boppam mi ngi andil kaaraange yaa ngi apaskanam les fa yéene kaay ne ko tegal foofu sa loxo en tout cas ma ngi koy andil nag nasaraan si am na contrat bu yees boo xam ne ña ngi ca war a exploiter terre bi fukki fan ak juróom ñaar ci weeru janvier gii lañ koy xaatim nguurug Sénégal nag SNCF la daal di tànn ci diirub ñetti at ngir mu exploiter bi yéene kaay bi ne ma ti APIX du ko xaatim de seen terre ci boppam moo ciy représenté état bu Sénégal moo koy xaatim direct news ne ma boobu aw askanam moom Sénégal ñu ngi leen di tuntuñal fii ci seenum réew liggéeykatu guyaar yi ci boppam nekk ci Dakar lañ fas yéene dàq nee ñu daal cib lay dañoo war a yaatal port autonome bu Ndakaaru cib société boo xam ni yàgg na fa xeex di grève moo ko andi foofu 2019 ak tey tey nag directeur ba di Mbacke Samb nga xam ne ay téeméeri nit lay employé lan ni ko yàgg say nit able leen Mbacke naan port ba daf maa utiliser tegal ma fi ak contrat fexe ba ma investir benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri million ci matériel tey jii nag contrat ba lañ bëgg tàbbal géej yóbbu nañ société ba yoon yoon xamal ko ni fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier bii dañoo war a able lu toll ci ñetti téeméer juróom fukk ciy liggéeykat nar a ñàkk seen liggéey l'info yéene kaay ma booba nasaraan sa xaatimal nañ leen contrat ñetti at ngir ñu exploité terre bi le tey mooy yéene kaay ne ma boobu Sénégal ngi tàbbi ci beneen tiis moom paate jonn sunu assurance paate national moo daal di làqu ni ki démb ca France moom mi doon kàngam ci wàllu banque ak assurance day ni ki démb la génn àdduna l'observateur ni yéen a génn adduna képp koo xam ne délinquant nga di def naka sodul noonu sàcc tux lu bon dëkkee ñaawteef ak toroxal say waajur yéene kaay bi ne ma gannaaw enquête bi waajur yi lii la ñu wax l'observateur ne ko dañuy dem sax ba di réccu naka lu ñu juree doom ba ñu màgg bay nekk ci yoon bu bon wii ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm